mooy xibaar rek euh, bii nga xam ne jot nañ ko démb lañ ko jot. Mhm. Euh, xam nga nag ñu nag arabi Saoudite euh, décalage horaire bi dafa dafa mhm. dafa dafa kii. loolu moo tax Sénégal ñu mujjee jot mais ñu ñii nekk ci milieu dans le football xamoon nañ ne que Kalidou Koulibaly dem na ba pare. Mhm. dégg nga signature bi moo desoon signature bi dafa guddee dem donc dem na rejoindre ki nga xam ne moom mooy Edouard Mendy Edouard Mendy moo njëkk a dem signé. Ah, en Arabie sax xam ngeen temps yi yéen ñëpp yéen a koy dégg. naar yi Arabie Saoudite léegi naar yi ñoom euh, saoudiens yi dañoo jël koppa gu bëri dugal ko moom ñoom dañu bëgg jël joueurs yu aay yëpp. <laughs> parce que Ngolo Kanté dem na Benzema dem na Cristiano Ronaldo dem na ba euh, jéem nañu xëcc Messi mais mu mooy euh, jabaru Messi jabaru Messi moom moo ne non waaw bu doon xam nga Messi moom waaw. Miss dafa nopp nit ñoo jabar ji. waaw waaw ah, dafa nopp lool léegi nag. bu doon yow nooy def. ah bu doon yow nooy def. ah non. kii day non bu doon yow di nga dem wala doo dem yow Cheikh Diagne Gomis. bu doon man di nga dem wala non leer na. waaw wala déet rek di nga dem wala doo dem. doo dem soxna si nday may ne la bul dem. waaw di nga di nga dem wala doo dem. day bañ ba ut ku ko bañ la. non ñu yokkal la laa wax de yokkal ay bagages yu graw. doo yorlee ko jaar ci ginnaaw. loolu dal na ma sax dal na ma nii. non nday may moo la ne du bul dem. am na koo xam ne bëggoon naa eh, kii nagoon naa fa dem mais Ndeye Mbaye moo ne toogal. waaw. da ngay dégg ndigal. Ah, kon yow da nga ragal Ndeye Mbaye. non dafa galaan dafa joŋe. ñoo ñëwee woo ko nii nii kon. non daa joŋe. gomis gomis gomis yow ñëwee yow yow gomis. xam naa la xeetu joŋe la. <laughs> waaye ba de dimbale ma doo <clears throat> euh, comme Messi bon ñoom ñëpp mais gars yi ba léegi dem nañu sax ba euh, entraîneur u euh, Juventus bi Allegri lañ bëgg a jël. Ah. ñoom ñu ngi bëgg jël Galtier ñoom daal nee nañu léegi nag fu mu nekk nii bo mais euh, wax bi yëpp tey jii du loolu Edouard Mendy dem na c'est notre gardien titulaire comme l'a dit Aliou Cissé mm-hmm. euh, notre capitaine d'équipe le capitaine des Lions Kalidou bali dem na waaye nag euh, gars yi mm-hmm. euh, dafa am benn wax boo xam ne soit wax bi dafa nar a rattrapé Aliou Cissé wala mu toog ci logique am un des deux ñëpp nag ñu ngi koy xaar ci loolu cest à parce que Aliou Cissé moo qualifié woon championnat yooyu de football exotique maanaam ay football la yoo xam ne pour dem uti xaalis la voilà pour dem uti xaalis la et mu matérial maanaam mu mu matérialiser ko ak joueur bu fa musa a dem nga nekkoon équipe nationale woowutu la loolu moom ñëpp ko gis. ñëpp ñoo xam ne dama ne dama koy commencé. ci Demba Ba bi muy nekk ci diggu ndëndam. Demba Ba dafa dem Chine mu def ko croix. ko ñu dem euh, Karambooj dem Arabie Saoudite bii mu def ko croix. Pape Alioune dem Arabie Saoudite bii mu def ko croix. am ñoo xam ne ñu ngi toj ci championnat boobu mu ne non du leen jël kon ce qui veut dire li mu waxoon. matérialiser na ko. xam nga. luy problème am ak Koulibaly voilà c'est quoi le souci non parce que na championnat yooyu. niveau bi développé niveau bi. moo des léegi nag. am affaire bi njëkk na ko rattrapé en en deux mille dix neuf. en deux mille dix neuf daf ko rattrapé ba ñi àndoon ak man euh, Saliou Bey sax euh, kii euh, jour boobu sax aboon na benn benn xuloo bu ndaw ba nag moom sax parce que dafa bi mu waxee loolu en deux mille dix neuf bi ñu gagné. Algérie moo ñu gagné. et dans l' de l' Algérie bi nekk champion d' Afrique. Mhm. en deux mille dix deux il y huit joueurs yoo xam ne foofu la ñu joué. waaw vrai. ma ne ko mais le championnat exotique est champion d' le foot kii euh, est champion d' Afrique. Algérie qu' est ce que ko tu vas répondre à cette question là. Ah, oh. sama gars yi ñoo ma téye na ma noonu bàyyil. ñëpp a ngi toog ñëpp a ngi toog conférence de presse. la laaj. zaal bu fi nekkoon. mu ne mu ne du mu ne du tontu mu ne du ma tontu ma nekkoon tu dois répondre à cette question. Ah. non mais attends tu as sacrifié des joueurs non tu c'est que li ma met euh, li li am ba am mooy il a sacrifié des joueurs. ndeysaan ay ñoom Karam Mbodj ay ñoom Pape Alioune Ndiaye. ay ñoom ñu. Demba Ba voilà mais ces joueurs oh là. voilà man nag Kalidou Koulibaly bi métti na ma torop torop torop vu ah. ni mu bëggee équipe nationale bi vu vu effort yi mu doon def yëpp surtout ba ñu gañewee. est-ce que dina ko def loolu est-ce da ciy génn ba mu set rek ah en tout cas Kalidou de amul eh, ah, sañu la yóbbu équipe boo xam ne te du ma teg Kalidou Koulibaly. Ah, sañu ko. on l'a fait woon boobu moom. mais nag mais nag loolu bés bu ko defee. Ah. injustice la. merci. Mhm. voilà. wax nga lu am solo nag. dëgg la injustice dëgg la ba foofu lañ koy xaaree nag. foofu lañ koy xaaree. Eh, tey jii parce que tey jii bu wooyee. Edouard ak euh, ki Kalidou Koulibaly woo leen en équipe nationale. donc nag ce qui def na injustice. Mhm. te nag ci dem bi c'est pas exclu Sadio Mané dem. Hmm. de ah de gaa ngi négocier de ak moom. Hmm. pourquoi c'est pas expli non pour Sadio dem kii. Arabie Saoudite gaa ngi koy négocier. lan la à instant bi may wax ak yow nii ñu ngi négocier pour Sadio dem Sadio Mané dem xaalis bu weex tàll lañ teg table. Hmm. Sadio na dem. waaw léegi bu Sadio demee léegi nag léegi logique ko Aliou Cissé. kon ce qui veut dire on va perdre Edouard. waaw ñu jël ñeneen ñu jël ay xale yu des xoolal ñu jël ay on va perdre Edouard. on va perdre euh, kii euh, Kalidou Koulibaly on va perdre Sadio Mané. yow équipe boobu yow. ak ki nekk Chine Mbappé 18 ans la am. Mbappé 18 ans la nekkee euh, champion du monde. waaw Mbappé 18 ans. waaw am na ay booy am 18 ans fii nañ leen jox seen chance. na moom développer son intelligence en tant que sélectionneur national pour teg ay xale yu taxaw yoo xam ne ay booy lañu teel leen pare léegi nii en trois mois booy yi mën nañu ñi ngi ci centre de formation yu mag yi ñu jël leen ñu remplacer leen bu fekkee ne mi ngi ci logique am boobu ba tey laa wax. mais bu nekku ci boobu. qui va l'arrêter logique boobu fan la ko teg sax laa xamul. ah waaw pour commencer d'abord. <laughs> ah non mais logique boobu. non ci yoonu ah, football. tegu ko fenn. nag luy problème arrêté tegu ko mais en même temps c'est lui le sélectionneur seulement il fait ce waaw ah, mais non mais attends dama ne bu fekkee ni ah, waaw nañ ko ko ñaan ci y a a euh, bi Ghana di nekk euh, euh, quart de finaliste de la coupe du monde en Afrique du Sud le meilleur joueur ghanéen te naar yi la nekkoon. Mhm. Diagne. Diagne Assa Assa Asamoah. waaw Asamoah. Mhm. foofu la nekkoon donc si waxam boobu man bi mu ko njëkkee wax. laa ko ne déet bul wax wax bi mm. bul ko wax dina la parce que li bu. yow amul championnat yëpp. bul bul tudd bul ne mm-hmm. kii mu ngi fii duma ko jël bul boo waxee loolu tàkk nga. Ah parce que da lay dafa juum. dafa lay rattraper te tey jii man je suis sûr et dana delluwaat ci waxam boobu. mais est-ce que est génnu ci wax ji est-ce que génnu ci tamit. parce que bu ci génne mu ci a perte. doon foo rek tamit. dara mu nekk waa daa ko naa nga fooyee jaraaf gore waaye équipe nationale. mais na ko na ko jëlee noonu parce que tamit lii bu ci bu ci demee ak ñun dëggal ko noonu ah. wala Salma mu doon jéem a xam na ni booy ñooñu xamatuñu dara ci gis-gisam. mu ne noonu mu indi prétexte boobu amul leneen lu mu wax voilà c'est tout. mais est-ce que moom doon wax kenn du changer équipe buy gagné. mais waaw mais moom dafa ne xanaa moment boobu noonu bëggatul Kara bëggatul Pape Alioune Ndiaye xamul nu muy def. nee na ni gis ci gis-gisu boppam ne ñoom xamuñu dara c'est fini dañ leen war a remplacer mais il lui fallait il lui fallut un bon prétexte le prétexte c'était ça mooy championnat exécutif yi du dootul jël ñoom Kara parce que pour moom pare woon na ci ñoom Kara Mbodj. surtout dootu nekk sax parce que maa ngi koy wax nii. Hmm. te benn joueur. Euh, dina ma seede gis ngeen euh, bi ñu jugee euh, maanaam Coupe d'Afrique kii Coupe d'Afrique avant ñuy dem avant ñuy dem Coupe d'Afrique. Mm. bi ñuy jël avant ñu koy dem. mooy bi fii vacance su daaw daaw ti jéeg da kii nu kaa kii nga xam ne kii di Famara Diédhiou moment yooyu xam nga Famara Diédhiou moment yooyu. Famara Diédhiou mu ngi woon Angleterre en deuxième division. kooku gisatuñu ko. mu nekk deuxième division. lay contrat am jeex foofu. mu ñëw ñuy waajal pour dem ku d'Afrique nangam moom il a eu naar yi Arabie Saoudite bii nga loolu yàlla dafa def man ma xam ci dara. yaayam mu may dégg. amoon na benn contrat bu xolal naar yi jox ko xaalis bu bare ne ko ñëwal de ba bëccëg kenn amul jàmm. ay yow moom dans sa tête. équipe nationale waxu ko de waaye man mii wax naa ko ka mais dans sa dafa ne bu ma fa demee dootuma ñëw te équipe nationale. finalement sax ñu nekkatul équipe moom de perte na quoi perte na. mu bàyyi foofu baax na rek wala mu dem Turquie. parce que xam na ne bu demee fële pare na ci. perte xaalis bi fële. doo dégg la il a laissé des mil non des millions des milliards. mais moom tout de suite soo lañ ko dàq. doo def dossier ci Turquie boobu parce que am na jour yu bëri léegi suñu kiiwee rek Turquie lañ jëm ki fi nekkoon jëkkëru euh, Racky Aïdara bi nu mu tuddati. waaw Guèye. Guèye xaar kii Guèye nu mu tuddati moom rek. Guèye la sant daal. waaw. waaw waaw. moom tamit Turquie la dem waaw loolu mais mais mais ne dama ne. Euh, euh, daf ci am am na yeneen joueur yoo xam ne tey jii bu ñuy waxee yow ah bu ñuy wax yow dañ naan fii man du ma dem du ma dem Asie bu ma demee rek dootu ma jotee équipe nationale ils ont des contrats dañ leen di tegal xam nga naar yi naar yi du dañ lay tegal xaalis bu weex taal xaalisu pétrole lañ lay tegal. de milliards lañ lay tegal ci table bi signal. mais ñoom dañu xaw ma la nga si xalaat mais ñoom dañu war a dem. xaalis boobu dafa bari ñoom il faut ñu dem récupérer alal bi indi ko Afrique indi ko ko Sénégal dañ bëgg jeu non équipe nationale xool jeu nañu doy na doy na am nañu championnat d'Afrique mais bëgg seen réew rek mais nag c'est vrai ça Sadio Mané bi mu nekkee Liverpool fii la ko bëgg sa réew def nañ li ñuy def dañ dem jëli xaalis bi Sadio Mané li mu def di tabax ay école ak ay hôpitaux et eh bien jëlee xaalis boobu bu ñu ñëwee danañu wan dañu gën a wan sénégalais yi ni bëgg nañ seen réew parce que dinañ xaalis non Sow Aliou Cissé la ñu war a xoolaat mu xoolaat décision bii nga xamante ni jël na ko te benn texte nag obligé ko ci waaw loolu nag mooy wax tamit tegu amul fenn ci règle fu euh, sport boo xam ne dafa ne boo demee ci championnat bii tu n'es pas sélectionnable amul fenn moom moo ko génnee te waru ko woon wax. waru ko woon wax. man bi mu koy wax laa toog ma ne déet daf na toj dafa teel a wax. dafa teel a wax bu mu ko wax. mais daf ko wax ba pare gi nga daf ko wax ba pare du koy appliquer doo dégg la ma la wax. laajal joueurs yi ma la tudd ñoom dañoo dem foofu. woowatu leen équipe nationale ka kaawu Famara Diédhiou bi c'est eh. <coughs> non am na ci benn euh, kii am na ci benn booy. benn booy Diop la sant mu ngi euh, Tëngéej dégg nga mi mi mi ko c'est le meilleur buteur fële Arabie Saoudite chaque année mu nekk meilleur buteur. mais musu kaa woo. parce que fële la nekk Maxet Maxet Diop. waa léegi kon Maxet il est souvent ci dëkk yi la nekk. non moom meilleur buteur Maxet meilleur buteur meilleur buteur meilleur buteur. du ñëwaat. léegi nag du ko jël du ko jël. ah du jël Koulibaly. waaw léegi léegi léegi na Sadio dem ba xam dina léegi bu dee Kalidou euh, Kalidou Koulibaly dem na. Euh, Aliou Cissé def li mu waroon def. qui va arrêter Aliou Cissé ak tamit yan lan lañ war a mën a jël comme euh, mesure ci ci ci lu ñeel moom li muy def rek ndax ko dem mu bàyyil Aliou Cissé. Mhm. bés bu Kalidou Koulibaly demee. Mhm. mu topp ay tànkam def ni mu doon def kan mooy wax ak Aliou Cissé ci fédération sénégalaise de football. kooku la Aliou Cissé est-ce que est-ce que am na ku ku mën a jug nag pour l'arrêter. Ah. si oh, décision bi mu oh. nekk xam nga dama leen di wax fii wax bi neexul kenn bi ma koy njëkk a wax Matar Ba étant daf maa woo ne ma bàyyil wax boobu ngay wax. Hmm. waaye dafa dem ba ci biir ba mu ne ma. wax dëgg <laughs> leen nee naa leen. fédération. ba hmm. commencé ko Augustin ba ci wàcc. Hmm. Aliou Cissé faalewu leen. Ah, waaw ah. faalewu leen man maa leen ko wax man leer laa ci xam. ñàngal bi la. kenn lay déglu kenn mooy makki Sall. est que man maa leen ko wax. moom moo yor équipe moo lu ma la doo dégg lu ma la am na yoo mais non mais attends daf ko wane sax. yow dañuy toog comité exe euh, comité exécutif ñu jugee Coupe d'Afrique 2019 bu ñu ñëwee rapport ñëpp dañ leen demande rapport ku nekk def sa rapport te loolu mooy yoon. Mm-hmm. il prend moom mu jël rapport am jël rapport am jox ko alors que son premier patron c'est Mayacine Mar <laughs> Mayacine Mar mooy premier patron. Maes Max le premier patron. lu tax jox léegi moom mu jël dossier bi euh, kii bi. rapport bi dem jox ko Augustin gars yi toog Augustin mu ne bon voilà réunion de. comité euh, exécutif waaw waaw mu ne voilà. bon le rapport de Aliou Cissé est venu léegi nag nii nangam nangam rek Ablaye Sow ne ko téyel arrêté ah. waaw ma ma lii. na rapport bi delluwaat ci Aliou ci ci Mayacine Mar. mooy directeur technique. waaw mu ne maa yow gisoo maa ne ko gisuma rapport. oh c'est dégueulasse. mu mu de gars lan ne Ablaye Sow ne réunion bi ne waaye coow li ne ko. ne ko lii yoon dafa wax ne kii mooy patron. dafa mel ni man tey jii tey jii. Mhm. man may ja man may jël sama rapport. jaarelewu ma ko ci kan. jaarelewu ma ko ci directeur bi. ci man waaw ma dem ci directeur général bi dem jox ko. nga dem ci Cheikh Niass. waaw Cheikh Niass dem jox ko. bu ma ko defee teguma ma ko ci yoon. Hmm. loolu lañ ko wax dañ ko ko waxee euh, kii nii. léegi am na lu ñu mujjee. ah delloo nañ ko de ne ko de kii mu ñëw mu def rapport jox ko Mayacine. léegi lan lan lañ mën a jàpp Mayacine téye rapport am ñëw te na ni am def ci ay kii. observation observation def ko yëpp bu jël ne ko am. Eh, soo ko wane. ñoom Augustin mbir maa ngi nii. léegi dégluwaat voilà loolu mooy yoon. Hmm. beneen affaire doo dégg li ma la wax même doo dégg li ma la xoolal waa fédération seen i ñu gis nga euh, renouvellement contrat wu kii Aliou Cissé. Hmm. mais Macky Sall daf ko wax avant waa fédération boobu waa fédération bëggatuñ ci woon dara man maa la ko wax bëggatuñ ci woon dara. Macky Sall mu ne way non Aliou Cissé on moom dañ ko war a dañu war a renouveler contrat way il faut mu de waa fédération topp ci. ñaata la sax d'ailleurs. Euh, ñaata la léegi dem na ba 30 millions. lan par lan. par par mois par mois. 1 million par jour. 30 millions. mooy 1 million par jour. moom. Ah, waaw waaw voilà <laughs> 1 million par jour ah! Aliou Cissé dafa liggéey suñu gis ko Aliou ah, Cissé dafa liggéey il a bossé hein léegi nag fanweeri million waaw léegi nag mu ngi léegi nag moom moom faalewul waa fédération de li ma wax doo dégg wax naa ko TFM ñoom ñëpp ñuy bati bati di bay woo waaye nangam non non am na dëgg yoo xam ne kenn du ko wax. non non 17 millions loolu. waaw Cheikh Diagne li ngay wax de amul non loolu la non non Cheikh gisoo salaire. Ah, non non Cheikh Diagne gisoo bulletin de salaire. attends attends non Cheikh Diagne. Aliou Cissé mënul gagné million par jour. dans ce pays là dëkk réew mi nii. non Aliou Cissé gagné million par jour. pourquoi pas. bi Aliou Cissé di fayeeku 17 millions. ok c'était le Sénégalais le mu payés. Mm. mais tey jii dama ne balaa ñuy doon dem coupe du monde c'est au mois de novembre point de presse Yankhoba Diattara moo toog ñëpp toog ñu wax contrat. oui mais wax na wax na salaire bi. doo dégg la wala doo dégg. million par jour c'est trop. mais il a moment bi mu nekkoon 10 millions ak le mérite ak bi mu nekkoon 10 millions am na ñu doon ne. gars dañuy wax Aliou Cissé. mais lu mu la wax ci sport <laughs> mais ak aussi comme lan ma bëgg a wax il a 30 millions par mois. Hmm. c' le Sénégalais le mieux payé au Sénégal mais Gomis tey jii xam nga ñu ne 30 millions attention yow eh, a des avantages. mais contrat bi coach. y' a des avantages. bokkul dara ak salaire bi bokkul ak salaire un sélectionneur dafa am yeneen mais comme yéen par exemple. les billets d' avion mais ñoo koy loolu koy yooyu def ko 50 millions rek. par par par doo dégg bu la neexee yow nga toog bi saa yow nga ne euh, bon euh, bon man damay dem Suisse xooli benn jox la ñu jox bi. sa salaire. ak sa waay ak sa frais d'hôtel lépp. argent de yow loolu 50 millions la. ah doo dégg loolu lañ daan da ngay toog bi saa ne non non dama dama wax xooli Kéba ci euh, fële Luciani ah. ah. c'est fini ah gars yi dañu jox dama war a dem superviser benn équipe. gars yi dañu lay jox ah. waaw waaw waaw léegi. man man léegi oto bi nag. waaw waaw foofu baax bi ko Macky Sall lan la oto bi ñaata lay jar vingt cinq millions. Hmm? Mercedes boobu topp ngaa ci sa ko fi. <laughs> waaw léegi man tamit Macky Sall xanaa duma jox ndax nit ñi noo. <laughs> kon kon joxuñu di wax nag non déet mais jox ma ba oto oto quatre-vingt-cinq millions jox comme ñu ngi ma koy jiiñ comme ñu ngi ma koy jiiñ nañ ma ko ah. jox beneen Macky Sall jox ma man tamit dañ may jiiñ <laughs> ah. ñu joxaale ko benn yoon jox ma bokk. waaw doy na waar alors. non c'est terrible xam naa waxtu bi xoj euh, bi. Mhm. Euh, la dañ ko yokk de temps ba bii di ñëw la. ba foofu la te objectif bii lenn la moom rattané benn objectif. Hmm. xam nga loolu la gars yi dul parce que man wax naa ko ministre bi. waaw yaa xoo ma jàttal bi ñu nekkee Qatar. Hmm. dama toog wax ko je lui ai la question. Hmm. mu daw question bi. ok posé naa ko Augustin mu ñoom ñu daw. loo ko laaj dans le contrat il est bien dit. contrat bi ñu koy si wax dañ ne. Mhm. Euh, objectif quart de finale de la coupe du monde au Qatar. waaw ak tamit jëli jëliwaat coupe d'Afrique bi. Mhm. mais Sénégal bi amul. amul. Mm-hmm. Sénégal bi de finale a euh, foofu lañ foofu lañ ko waxoon dàq. di la jaajëf ndogal la ndogal la mais hmm? est ce que aujourd'hui dafa ne bu ñu kiiw lañ koy dàq. non doo bu bu boo boo demul kaar dañ lay dàq. attends xoolal xool dafa am obje dafa am ñaari objectif man dafa ne dafa am objectif. premier objectif mooy échéance bii di kii mooy que quart de finale. xam nga objectif euh, kii euh, kii amul ay nii dañ ne euh, kii. objectif objectif la atteindre ko dañ lay daax. en tout cas ko. doy na waar non non bépp xoolal xoolal entraîné demal demal ci Guardiola. Hmm? demal ci Guardiola nga dem ci Xavi nga dem ci Ancelotti nga wax leen seen contrat. on ne met jamais ça on le met xam ni ñuy wax objectif. waaw loolu la ñuy mi ngi noonu am na solo bu baax a baax.